abda musafaa wajjahtu xidmatan safat busaaratan bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi nu sant yàlla sunu borom jullit yonent bi di sant Serigne Touba Xaadim Rasuul ñaanal Cheikh mu Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér naal yi mu naala lislaam naala ko Serigne Touba mu àggale koog di siyaare bu baax nga xam mooy jëwriñu bis bi di jëwriñu kër gi. muy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Khadir yàlla yàggal ko fi loolu te ma ànd ak ñu ne fii nag tey ci màggalu Serigne Abdou Khadir Mbacke moom Serigne Touba Khadim Rasoul di màggal gi ñu ne fii nag kër Cheikh Mamadou Bassir moom Cheikh Abdou Khadir bisub tey bii nag di bisub pajo aajo di bisu ngel di bisub tawféex ndax keroog Cheikh Abdou Khadir bis tey bii bi mu ko gënee àdduna Serigne tubaa moo ne maam Thierno Ibrahima Faty yow mi koy tuddi na nga yéexal say jéego ndax sa dem ak sa dëpp koo dajal ku ne yaramam araamal na sawara kon bisu bisu pajuk aada la moo waral at bu jot njabootam gu tedd gii di ko màggal ñu ne fii nga xam ne nag mooy kër Serigne Modou Bassir moom Serigne Abdou Khadir mi nga xam ne magam yi moom lañ doyloo wóolu ko yëkkati kàddu yan wi dénku ko ko te boobaag tey mu ciy def liggéey bu rafet li ma koy faral di wax ne ko porte parole boo xam ni loo wax mu porte loo wax mu saf nit ñi te loo jël rek ndamal Serigne Touba nga ciy jiital ak ngërëmal Serigne bi kon yàlla na ko fi yàlla yàggal. démb ci waxtu wi tembe teranga yu ne jóge na kër Cheikh Mouhamadou Mountakha jëm si ci moom waaye ci ak taalibeem ak mbaaxam daa tàmm lu ko sëriñ bi jox mu joxaat ko ko addiya waaye sëñ Mountakha ne ko nag bis bi day sëñ bi su bopp ma moom ko ngay cëru sëñ kër sëñ Abdou kon nag lii jël ko defal ma ko ci bi muy tawfeex gu yaatu goo xam ne ku fi teew ku ne rek loolu seet na soxol te bëgg nga ci kon sëñ Basiru yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ñooy fii nga xam ni nag daa bokk ci ci kër gi su ma neexee ne mooy waañ wi su ma nee waañ wi nag nga gis ni mu barkelee fauteuil yi rafet climatiseur yu upp ñëpp sañse loolu mooy li yàlla barkeelal sëñ tubaa léppam ndax sëñ tubaa tayam yu ne day gàcceel démbam ndax wàññi sëñ tubaa yi léegi day dem bay mel ni saali buur yi ndax sëñ tubaa moo noon danaa leen defar loo xam ni buur du leen dàq la muy lekk du leen dàq la muy sol du leen gën kër te kuy rey buur bu leen jubee teggi leen yéen ñii sama ñoon defal naa leen ko ñu ne ñii nag ci soxna wali kebe moom soxna waalo moom Serigne Saliou ji di Cheikh Mamadou Bassir moom Cheikh Abdou Khadir mu ne fi ci liggéey bi rafet am fi taxawaay yu am solo ànd ko mbokkam yëpp am di jàmbi ak mbokki taalibe yi mboolem ñi mbokkal sëñ Touba ñëpp ñëw nañ ànd ak moom ndax moom da dafa ni màggaluma ne ci waañ wi di jàppale sëriñ bi ci gan ñi waaye nag am na noo xam ne ku ko bokkee ci yoon wi ak ni nga ci juddoo ku ko juddoo foo nekk nit ñi fekk la fa moo waral mbokkañ baax yëpp ñëw bàjjen moomee ngi nii moom sëñ daam atta fekkoog sëñ Modou mataar ak mbokk yëpp kër sëñ Moustapha Saliou kër sëñ Cheikh Saliou kër sëñ Abdou Lahat kër sëñ Soyibu kër Cheikh Modou Moussa ba kër Cheikh Mourtala kenn desul kër Mamor Diarra ba kër Cheikh Massamba mboolem bunti kër Cheikh yi sëñ Touba yi ñëpp ñëw nañ mbokk yi fenn fu ne bàyyeekoo nañ fa ñoo ànd ak moom ci bis bi ngir xam ni soxna Wali moom Serigne Bass rek la am te sëñ Bass it bis rek la am moo tax bi mu nee damaa ne ci waañ wi wootewu ma ko nit ñi ne ko waaye nag yow loo ne ñun dañ la cay fekk si moo waral kër gi mel nii kon moom it ñu ñaanal ko yàlla yàggal ko fi te mu ànd ak wér yàggal ko ci ginnaaw sëriñ bi te te njaboot gi yàlla barkeel ko ba yéene ji mu am ci sëñ bas am ko ci njaboot gi yàlla defal ko ci lu kawe njortam as gor la ab taalibe la ab murid la ne soxna Waalo mi ko jur sëriñ Saali woo ko jur ñoom nag ku leen xam xam ni liggéey la ñu xam ak jaamu yàlla taxawaay boobee rek moom la fi nekkee kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yàlla bu mu doon suñu mujj jëm daje nañ ko màggalaat téeméer at yu tàmbali tey ci barkeb Serigne Abdou Khadir wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu